na nga def li la war sa digganteeg sa borom na nga def li la war sa digganteeg sa borom. soog a dem ci jabar ak doom. soog a dem nag ci jabar ak doom. jabar na def la ko war digganteem ak boromam. jabar na def li ko war digganteem ak boromam. soog a jublu ci jëkkëram. soog a jublu ci jëkkëram. doom na topp boromam def la ko war digganteem ak boromam. doom na topp boromam def li ko war digganteem ak boromam. soog a sàkku ngërëmal waajutam. soog a sàkku ngërëmal waajutam. taalibe na def la ko war digganteem ak boromam. taalibe. defal li la war sa digganteeg sa borom. soo ko sakku ngërëmal sëriñ bi. soo ko sakku ji na ngërëmal sëriñ bi. ñi ñett. ñooñu ñett. seen ngërëm baax na lool. seeni ngërëm. bay baax na lool. waaye na fekk nag nga jiital yàlla. waaye na fekk nag ngërëmal yàlla jiitu.